amal ci diwaanu Congo. njiit yu nekk ci union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique l'UCSA ñoo rek gane ci Dakar tey jii nag ñu doon amal ab ndaje ngir jàngat doxalinu mbootaay bi. ñu jotee rek tabb ñeenti ponk yu ñu nar a saytu ba ca jiitu mooy. waaw lu njëkk li mooy ñu càmbaraat li nga xam ne mooy tes juridique yi ak statu yi ñaareel bi moo ñu gën a yaatal fexe ba yeneen dëkk tamit ñu daal ñi fekk si comme nañ ko defee woon rek fan yee ak bu mujj bi mooy composante maanaam liggéey ngir rek mën a xam lan mooy wàllum citoyen ci li nga xam ne tamit mooy sondage bi. un sondage dans plus de 16 bi la jotaay nag la ca judd rek mooy ab siège l'UCESA bu ñu nar a tabax ca Maroc mu nekk ab ndogal bu njiitu institution yi nekk ci dëndu Afrique di rafetlu Abdoulaye Daouda Diallo di président wu conseil économique et social et environnemental moom it gise it noonu disons dañu war a am benn bureau permanent. te boobaa président donc euh, Chami du conseil économique social et environnemental du Maroc def ñu ci proposition loolu it bon ñu ànd si parce que am na kenn ki nga xam peut-être dafa xalaatoon ne war na mun intéressé na Sénégal muy lu leer effectivement war nañu mun intéressé mais dema jàpp ni aussi réew bu toll ni Maroc su bëggee dara mu njëkk ñu si euh, amuñu choix lu dul maanaam jàppale ko si loolu. en tout cas si bëpp bëgg-bëgg nga xam ne Sénégal am na ko. bi la jotaayu bureau de l'union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique bi nga doon amal ci Dakar dafa rek dajale institution yu nekk ci dondu Afrique Maroc Gabon Bénin ak Côte d'Ivoire ñëw rek wuy si bi la yi ku ci nekk rek di dëggal sa moomeel ci l'UCESA ñoom nag lañu ca bëgg rek mooy bokk ci lu mën a redynamiser mbootaay bi di l'UCESA